dikkati na ndaw gàmmu dëgg-dëgg bu alaa daw ma ngir Benno Bokk Yaakaar source moo ko xamle tribune yéene kaay ne ma moom président Macky Sall day fi mu ne ma ngay campagnal Amadou Ba nag ca Tiwaawan l'observateur naan koon du Tiwaawan kese Vox Populi naan koon Sall gannaaw Tiwaawan dem na Njaasaan dem na mi Medina bàyyi L'Obs naan koon te fu fa dem nag déey na fa wala sax mu déeyoo fa ngir ñu ñaanal Amadou Ba mu am ndam tribune yéene kaay naan man mooy la ma wax rek moom président Macky Sall day ma ngay campagnal Amadou Ba nag ma nga njëkkee campagne ga ca Tiwaawan waaye lenn rek moom mooy wisitam tàggatoo ci mu rangoo yërëm njiitum réew daal di jàggar jàggar nag dem fa nga xam ni moom la ñu dippee ay foyer religieux yéeni kaay bi dee média bi naan man daal dinay tàggatoo ca Njaasaan moom président Macky Sall waaye la yéeme mooy Sall demul njëgeen moom ma ki Sall demul ci sëriñ Xaadim Loo Gaydel moom Sall ngaari lam toora buur gëre demul seeti ma ay dara moo tax nag yéeni kaay bi dee média bi sampub laaj ndax Sall nag dafa am jafe-jafe di problème daal ak këru diine yooyee le mandat yéeni kaay naan man en tout cas président Macky Sall Tiwaawan daal dinay tàggatoo ak xalif ba di sàkku it ay ñaan ca ñoom laas yéene naan man xalif bu Tiwaawan kay dafa samp Amadou Ba ne ko Amadou Ba bu Sall wàccee yaay yéeg nekk nag président bu Sénégal Sall naan xalif bi sant ci kàddu yi rek de ndax man mii maa tabb amadu Ba te maa bëgg ko jàppale laas naan man sëriñ Mansour si Djamil jooy na jooy yu métti ci kanamu président ma Macky Sall waxtu woowu yéene bi naan man Cheikh Mahi Niass méngoo ak jamono di woote ci liggéey ci yar ci ay projet yu rëy ngir jëmale Sénégal kanam évidence yéene kaay naan maan waxtu woowu moom Bougane Gueye Dany day ak gëm sa bopp ca Kaffrine ña ngay doxal bien bon le moo mooy yéene kaay naan maan Bougane tëñ-tëñal gi mu am ci yoon wi tax na mu yéex a yegg Kaffrine terewul waa Kaffrine dañu koo xaar ba daanaka fajar 24 heures yéene kaay naan maan rax ci doolu jox ko sëri ca lu toll ci juróom-ñeenti junni juróom-ñaari téeméer juróom fukk ak juróom benn ci parrain lañ ko daal di jébbal tribune yéene kaay naan maan daanaka fukki junni ci parrain la waa Kaffrine ne yéet jébbal Bougane Gueye Dany ni ko yóbbaaleel Ndakaaru moom Bougane Gueye Dany naan leen maa ngi rafetlu bu baax baax jëf ji ngëm sa bopp Kaffrine gàcce ngaa laa may amul génn ak dërëm goo xam ni joxe nañu ko fi ngir ngeen dugg ci kër yi daal di wut parrain yii joxuñu leen génn ak dërëm it ngir ngeen toog di xaar sama jëm ji ba ma yegg si lii ngeen def nii day wane ni dëgg-dëgg sama diggante ak yéen ko lal wane na it politique ci wàllu coppite mën naa am ci réew mi maanaam def te yàlla tax waaye def aku yaakaar goo xam ne am nga ko ci nit samp ko ci moom réew mi ko dajee naan maan yaakaar a foor de moo tax gannaaw ba président Macky Sall bàyyee primature moom lañ fa teg Soumaré ne gannaaw bu bàyyee nguur man mii laa bëgg it sénégalais daal di ma fiy teg ni yéen kaay mel ni ku naan man ku nekk sa mbër de waa parti démocratique sénégalais Karim Meïssa Wade mooy seen mbër waaye militant yi ci boppam ñi ngi tàmbalee xaddi ci ñàkkub ñëwu Karim Meïssa Wade bi nga xam ne ñàkk na ko ñëw ngir bokk ci élection yi fi mu ne politique u Sénégal ci boppam moo neex source a naan man moom président Macky Sall ma nga woon Tiwaawoon Aly Ngouille Ndiaye mel ni kuy topp tànkam daal di dem ca Tiwaawoon vox populi naan man ngir ni ci présidentielle bi Mame Boye Diao génne na téere Mouhamad Boun Abdallah Dionne daal di démissionné ca BICIS ñoom ñëpp nag fas yéene jaamaarloo ak Amadou Ba tribune yéene kaay naan man lu ni mel day du am ca diwaanu Kaolack ñoom Kaolack lu toll ci fukk commune ak ñeent yu département ba dañoo jébbal kàddu gi Cheikh Ndiaye ne ko waxal moom Cheikh Ndiaye inspecteur du trésor coordonnateur bu direction général bu comptabilité publique ak trésor daal di daje waa Kaolack ci assemblée générale gannaaw ba ko gaa yi ne waxal moom Cheikh ne fi mu toll nii waa Kaolack ngembul nañ Amadou Ba rafetlu tabb gi nga xam ni président Macky Sall tabb na ko ko ndax loo ci manti dégg jëfi président Macky Sall mooy wéy plan Sénégal émergent bi nga xam ni moo war a suqali réew mi mooy daal di wéy dana taxit tabbug Amadou Ba gii lépp loo xam ne ñaawteef la te mu nekk ci suñu ay frontière fas yéene song suñu réew Sénégal dee ñu katandu ko ca Ndofane moom jiital mouvement pour l'émergence et le développement xam le ni waa Benno Bokk Yaakaar ci boppam ngembul nañ Amadou Ba ca Kaolack fas yéene am ndam Ndiaye daal mi ngi mel ni ko xamatul président Macky Sall maam booy jaawoon ca téeréem Mouhamad Boun Abdallah Dionne démissionné na ci bisis fas yéene jaamaarloog président Macky Sall ko Quotidien naan leen fi mu ne day lu ñu métti ci réew mi candidature yi nga xam ne sakkan nan lool nekk fi bari fi lool moo ñu ko teg te loolee mën na jur à tout moment jafe-jafe ci réew mi turbine yéene kaay nan man Ousmane Sonko éliminé nañ ko ci liste électorale yi El Assane Sall nan leen et après génnee Ousmane Sonko ci liste électorale yi dafa mën a tax nag ngeen génnee li ci xolu askan wi ndax nag dajale naqar ak tiis xam ne teg ngeen ko askan wi lii tax nag askan wi jol seen xol jébbal ko Ousmane Sonko ngeen ne tey jii Ousmane Sonko moomee raje ngeen ko ci list yi la ngeen war a xam mooy taxul askan wi naw seeni i jëf critique yéen kaay naan Ousmane Sonko day bu ngeen fexee ba nekkul buur ci réew mi moom Sonko it mooy def buur ci réew mi rek ndax Sonko ci boppam dafa sonkoriser électorat yi 24 heures yéen kaay naan man en tout cas Ousmane Sonko moom daal dañ koy dindi ci liste bi waaye Guy Marius Sagna ma nga positionné wu fayallaahu vox populi naan man LONASE am na njiitu lu yees Doura Baldé niki démb daal dinay weccee léegi Gueye ak Lat Diop daal di fay rafetlu bilan bu Lat Diop le point yéene kaay naan man Lat Diop day nee na bàyyi bàyyi Lonase daal di fay bàyyi nag ca keese lu ëpp fukki milliards ak ñaar l'évidence yéene kaay naan man Souleymane Ndiaye bu SDD njiital SAPCO moom it ma nga mobiliser waa commune bu Sédhiou daal di fekk ñaar fukk ak juróom benn ci ASC daal di leen di équipé ne gees na jàppale ndaw yi waaye tam politique de jeunesse bi président Macky Sall taxawee laa taxawee fas yéene ndaw yi toog ci réew mi gis seen bopp ci réew mi mën a bég ci réew mi ci lii laay dox tribune yéene kaay naan man doxuk Fatou Laye Mbaye Diop journaliste ca des médias du lenn lu dul askan wi ci boppam daal di juboo ak presse bi Faatulaay Mbay Diop ne fi mu ne diggante taskatu xibaar yeeg askan wi daal daanaka ñagas na te ngir mu daal di deñ faaw nag journaliste yi mën a jubóog seenug askan day jaaree wax ca la nga xam ni moom la askan wi bëgg dégg muy crise économique yi xam ne mi ngi ci réew mi jafe-jafe ci wàllu politique yi nga xam ne mi ngi ci réew mi wàllu wér yaram jafe ci réew mi taskatu xibaar yi man ni la dañoo war a dugal seen loxo bu baax a baax ni réew mi di doxee wax askan wi la nga xam ni moom mooy réalité réew mi ngir ñu mën a doxal jàmm ci réew yi faaw taskatu xibaar yi di wax askan wi lu ñu dégg ngir ñu wax leen li ñu dégg it faaw askan wi am confiance ci ñoom ci liñ leen di wax looloo am te loolee ngir mu am faw juboo am ci seen biir faatulaay mbay ne foofee laa bëgg dugal sama loxo ngir tasum xibaar mën a ñoom nekk loo xam ne day jëmale askan wi kanam yor yor yéene kaay naan leen xanaa ñu bay ci sunu waar wax leen ni batolo joolaa ba mu suuxee ak tey yàgg na la waral suux ba ba tey kenn xamu ko kenn xamul état bu Sénégal lan moo ci responsabilité yëpp moo ko daal di ràngoo njabootu mi yi ñu bàyyee leen seen cëggal guy kenn toppatoowu leen daanaka fàtte sax lañ leen def ci réew mi moom bato la joolaa di jural réew mi jafe-jafe koom yoo xam ni maar day taali ñaar fukket ak benn moom bato bi ba tey mi ngi ci biir ndox mi génnee ko sax doon jafe-jafe Samsine ay dara ne xel moo mënta nangu bato boo xam ne ñaari junni doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci bato boo xam ne nguuru Sénégal moo ko doon géré ba nii kenn mënta joxoñ baaraam diw ne ko yaay bi ak benn ci ren daanaka jikko yi nga xam ni moo taxoon batalo joolaa suux jikko yooyee ba tey ñu ngi koy nemmeeku ci Sénégal ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoo foofa sànni mbàtt mu tàkk mbooloo ma sakkan nañu fa lool nak euh, daanaka nag démb ca suba ga euh, kii di njiitu réew mi président Macky Sall euh, dem na fa sekk waxtaan ak xalifa général kulu Tijaan Sëriñ Babacar Si Mansour sa diwaanu Kaolack yi daañ fa dem ci biir la jotaay xibaar foofee nga xam ne wàllum kaaraange gi lu toll si juróom-ñetti téeméer ci ay agent daanaka dajal nañu leen yóbbu leen sa Medina Baye ngir wàccaayu gàmm gi daañu waxtaan it port autonome bu dakaar gaa ñi activités dañu ko rek euh, dañu ko gàttalandil euh, dañ ko gàttalandil ndax grève bi nga xam ne collectif bi ëmb ko des acteurs portuaires ñoom ñoo ko sumb ñoom ci boppam nee nañu opération de paiement yi jëm ci wàllum euh, traitement conteneur yi dañu ko dakkal mu ñuy koppar bu bari bu nga xam ne jot nañu ko ñàkk ni ki démb daan jeexal bi la jotaay xibaa tàggat yaram ak li yéen a kaay xëy dëxa njax maantulaaj ci bundooy faram fàcce gi Mamadou Fofana si àndal Voici Traffic News. allo Abadiata. Abay allo Asma. waaw maa ngi leen nuyuwaat foo nekk jamono ji. voilà merci beaucoup nous nous, nous avons dépassé mooy ñu signal des ralentissements ñu ngi signalé que depuis quelques instants c'est très compliqué sur l'axe rond-point Sicap Mbao wala bokk Thiaw euh, tableau Thiawoon Sicap vers fi nga xam mooy Fass Thiaroye c'est compliqué en ce moment. ko defee aussi nous avons progressé jaax nañ léegi rek changeur bu technopole là-bas aussi yéen ñu ko Guédiawaye ak Pikine jaare noonu di ngeen xaw teg seen tànk un peu ci pédale bi su ko vous avez le choix mu ngeen fa jaare utali terrasse utali la route des hydrocarbures wala boog ngeen tàllal utali échangeur bu Cambérène là-bas pas trop de complication même si oto yi ko Dalifort Jaraaf Diop bàyyi ko aussi du côté de Kaas yi dañuy par là su ko C'était Traffic News. jërëjëf Faba Diatta Mame Mbaye mën nas nañ door xibaar yi des naka door ñaar fukki fan juróom benn ci weeru septembre tey ji ñuy fàttaliku suuxuk batalo Joola xam ngeen ñaar fukki ak benn sa toll suuxuk batalo Joola foofee nga xam ne moom la bato ba suuxoon sa diwaanu Ziguinchor sa wax ya sa fa tolloox Gàmbi ak guddi la woon lu ëpp ñaari junni ci ay doomu aadama ñàkk si seen ak bakken sa diwaanu Ziguinchor nga xam ne ñu su bëri ñu sa faatu foofu la ñu bawoo wala foofee la ñu euh, dëkk daanaka nam nañu faamal ay activité ni tey ji ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk wàllum l'armée bi Sidiki Kaba ñu ànd si leeral yax Abdourahmane Diallo. sëgg yu kanteen fi nga xamante ne toll na ci ñeenti fukk ak ñaar ci ay victimes yu batolo jola ñoo ngi fay tëdd mooy doon étape bu njëkk bu cérémonie commémorative bu vingt et unième anniversaire bu suuxu batolo Joola délégation bu ministre des forces armées dina dem ci bërëb boobee nga xamante ne ay ñaan dinañ ko fa amal te évêque bu Sigicoor ak it imam ratib bu Sigicoor ñoo koy jiite boobee autorité yi dinañu dem ca port bu Ziguinchor foofee nag ñu fa yeggee ministre des forces armées dina amal li nga xamante ne moo di dépôt des jets de fleurs laata ñu ciy toftal nag cérémonie officielle ba gën saa niiw ñetti nit dinañ fa jël kàddu ku ci njëkk nekk représentant bu maire bu Ziguinchor toftal ci nag président bu association nationale des familles des victimes et rescapés du Joola laata nag ministre des forces armées maître Sidiki Kaba di fa jël kaddu les relique du Joola pour le mémorial musée loolooy thème bi nga xamante ne moom la ñu tànn ngir marqué ñaar fukk ak benneeli at bu jiyee yi nga xamante ne moom moo gën a mag bi am ci biir géej ci àdduna wërngal këpp particularité bu édition bile mu ngi lalu ci organisation bi nga xamante ne orphelin yi nga xamante ne jamono ji ñoom ñëpp ay mag lañu ñoom ñoo ko daal di doxal la mu ngoog lu ëpp ñaari junni si ñoom ñoo ci ah, faatu ci ba gaal ga suuxee ñu ngi koy fàttaliku bokk na sa ñaar fukk ak juróom-benn ci ay ndaw yu nga xam ne benn équipe de football la woon ñoom ñëpp des si ndox bi ak seen entraîneur ba ñu àndaloon bëggoon dem benn match ah, sa ah, Fatick waaye mujj ñu yegg noonee lañu faatoo benn artiste wala ay artiste Kafountine daanaka rendre nañ lu leen hommage ñoom ñaar fukki at benn ci tey ji ñu koy fàttaliku Élie Jean Bernard ñu teewlu ay kàddoom ak Abdourahmane Diallo. monsieur jël xale yi ñu génn bi ñu génnee euh, ñu ànd sol ay maillot rouge et blanc noonu euh, ñu jubal ci bateau bi le lendemain la ñu yëg nii ñoom ñëpp dee nañ fa euh, benn kooru xale gisuñu ko donc métit boobu. Euh, moo waral journée tey donc journée bu am solo la à travers l' de football mais aussi lépp loo xam ne famille de victimes 1953 victimes yu des si gaal gi. Euh, ci loolu nag euh, ñu jot gërëm initiateur projet bi mooy monsieur Abdoulaye Guissé nga xam ne vraiment kem kattanam alalam yëpp la jël pour def. mur bi ak temps donc depuis des années ñu ngi jéem a mûrir projet bi ñu mën ko fi def parce que objectif fu association bi moo nekk encore une fois nañu multiplier ay mémorial un peu partout dans le monde ndax ñu gën a mën a sensibiliser nit ñi ñu gën a mën a communiquer ak nit ñi ndax li xewoon ci joolaa bi mu bañ a mën a continuer ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen euh, njaboot la ñu bëgg jamono ji moo di la des sa bata ba ñu génne ko ndax ñu mën a def seen ub dëj en tout cas loolee jàmbat la bu yàgg bu nga xam ne teg nañu ko ci euh, taabul ji ñu àndal Cheikh Alassane Baldé ñaar fukki at benn gannaaw bi bateau Joola suuxee ci géej gi njaboot yi nga xamante ñoo loru ci boobu leel accident nag di wéy di teg ci table bi yenn ci ay càkkute càkkutéef gannaaw ba ñu ko njëkkee déposé atum 2007 fukki at ak juróom-benn ni tey ba léegi nag yu ci bëri antoogu ci bokk na ci yooyee doléance nag lu jëm ci ñu fexe ba génneewaat lii di bateau Joola bi loole nag autorité yi nag daa mel ni sawaruñ ci lool gannaaw li mu mën a jur ci wàllu jafe-jafe ci nekkinu doomu aadama yi naka noonu yi te koppar yi mu laaj ngir rek mën a fexe fexe bu boobu la opération mën a daal di antu tolleeku siit prise en charge ñi nga xamante ni mooy orphelin ñàkk seen i wéyjur ci boobule l' accident waaye rescapé waaye taxawaay bi war jëm ci ñi nga xamante ni mucc nañ ci boobule l' accident waaye ñu daal di amal ab procès ngir ñu teg daan ñi nga xamante ni ñoo la boobule jéy ci yooyu la ponk ñu mën faa ràññee te lu jëm ci ñu jëmmal ñaar fukki fa ak juróom-benn ci weeru septembre at bu ne jaglal ko nag li nga xamante ni bés bu ñuy fàttaliku yooyu la doléance nag ba dara sotteegu si ñaar fukki at ak benn benn ni atum euh, xenn bi batalu Joola daal di suux te luñ jàpp ni lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ay doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan suñu sukkandikoo ci autorité yi defit ñaari junni ci ay jërim Alassane Balde suuxu batalu Joola ñu koy fàttaliku ni ki euh, euh, euh, tey jii waaye it Emox ñuy fàttaliku wala sax ñuy ñuy jëmmaal guddi gën gi mbindeef bi nga xam ne moo di Mawlid di gàmmu gi en tout cas ñu su bëri wan la ñu taamu dem fa foofee nga xam ne téeméer ñaar fukk ñetteelu édition bi ñu ngi ko fay amal mu di gàmmu gi nga xam ne sunu maam El Hadji Malick daanaka moom moo ko fa woote démb nag ci suba njiitu leen président Macky Sall daan fay dem xalifa dalal moom Serigne Babacar Sy Mansour ñu ànd ak Cheikh Abdoul Aziz Sow Dabakh Tiwaawan nekk ci wàccaayu guddi ka gën gi yoneen ren ji yembook téeméer ak ñaar fukk ak ñetteel bi yoon ñu koy amal dëkk bi fees dell burdu gi démb ci guddi lañu ko tëcc fu nekkoon lañu bàyyeekoo ngir teewee ko moo xam ndakaaru la ba ci gox goxaan yi ak dëkk yu fasantikoo senegal waaye itam ba ci diaspora bi mawlud bi dinañu ko amal ba ci guddi dinañu ci jaaree ñaax ndaw ñi ñu topp njàngaleem yonent bi fàttali rek ni njiitu réew mi Macky Sall démb mu ngi woon fii ci Tiwaawan xalif général Kulu Tijaan moo ko dalal seedeel na ko cër bi mu jox Tiwaawan xalif général bi ñaanal na ko ñaanal itam Amadou Ba ak réew mi fàttali rek ni démb ci suba taw bu foor moo wàcc fii ci Tiwaawan Ndeye Sow Dabakh ni nga ko waxee noonu la démb la ñu ndar képp burdu bi mu di fukkeelu fan bi tey jii mooy noppalaku bi noonu lañ ko mën a jàppee ëllëg nag mooy doon euh, li nga xam ne moom moo di euh, gàmmu gi démb nag foofa sànni mbatt mu tak taalibe yi bawoo nañu fu ne ngir dikk ñoom it def ñaan jagleel ko euh, gën gi mbindeef ñu ànd seex Ndeye Khady Diouf Babacar Maar ci mbégte la taalibe yu bari teewee guddi gu mujj ci burdu bi. metti na méttiwul kuy ñëw ci lu yàlla gërëm doo yëg coono te yëguñu ci benn coono macha allah. li ci waay def beeg si rek jar na ko ndax bis bee ko jar. yor kurusam di werd soxna si bawoo mbuur ne dafay profité ci ngëneel yi am ci guddi gi. ñu yegg si fii ñu ngi ñaan yàlla ñi ñëw ak ñi ñëwul yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ak ci réew bi àddina bi yëpp yàlla defal ñu jàmm. maa ngi jullit ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi di ñaanal mbooloom jullit. di ñaanal yi fi tëdd ak ñi fi teew ñëpp ci at mi yàlla nañ fi yàlla dajale waat ci barke laa ilaaha illallah muhammad rasulullah yàlla bu mu nekk suñu dernier burdu yàlla nañ fi burdu téeméeri at ak ñaar fukk juróom yàlla nu yàlla fayal alaaji Malick dëkk bu sell bii di Tiwaawoon daal dina ndar biig ci guddi burdu bi ñu amal ci diirub fukki fan ngir waajal mawludul nabi jaaykat yi daanaka tàmbali nañ see gis seen bopp ndax nag fi mu nekk nii euh, nit ñi bari nañu lool te njënd ma njaay ma dox na lool donte taw mi andi na si ay gàllankoor waa mairie ba it nañu leen di yëkkatee daanaka metti na lool ndax nee ñu dañ leen waroon a bàyyi ñu profité ci gàmmu gi ngir mën a am ngir mën ñu mën a daw dépense. ñu ànd seen reportage bu Fatou Mata Diop Babacar Mar ñu ngi fii ci marché bi ñoom ñoo di nag commerçant yi nga xamante ne dañoo ñëw ci gàmm ci waawan wi ngir nag daal di amal li nga xamante ne rek moo di jënd ak njaay miile. njaay bi ñu ngi góorgóorlu lu baax baax dëgër na lool mais ñu ngi koy seere te xam naa ne moom dana neex ñun moom dañuy xaar. Moulay ak Aliou ñoom ñaar ñi nag ñëw uniquement ngir nag jeexal seen i ay produits nee nañ satisfaire nañ bu baax a baax ci doxalin wu gàmm wile. dañoo jaay si ren moom ren moom moom nga xam ne rek dañoo boo toog too yaayee doom rek te soxna yaay yooyu dañuy sant yàlla baax a baax. xanaa taw bi taw démb rek waaye taw a ñàkk moom. waaw fii moom yii rek la ñuy sol après day neex si kanam. ci kanam waaw. bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag ne nañ ne liy ñuul ci soow li moom moo di rek yenn saay dañu leen di jëlee fi ñuy taxaw ci tali bi. pour ramas moom gars fii rek moo ñu soxal tali bi. léeg-léeg ñu yëngati ñu daw suñu bagage xaw a yàqu sax mais garaawul quoi comme kër gi moom ci la jëm ñun mën nañ koo jaayante ak ñoom amuñ problème boobu. ñuy xaarandi nag ba supp gàmmu gi ak la ca topp commerçant yi ñu ngay xaarandi gis ay clients yu bare bari. ci lu baax sunu borom bi da koy ful ba ci jaaykat yi gis nañ seen bopp Mamadou Fofana lii dafay firndee ne kon eh, gis nga nit ñi bàwoon nañu fu ne ak lu mu metti metti metti dem nañu mais ngëm-ngëm googu nga xam ne moom la Sénégal yam bokk na ci li nga xam ne mooy sunu doole fii ci <coughs> loolu kenn werante bu ko kenn natable wu ko parce que ngëm-ngëm geeg pas-pas gi nga xam te nii tey moom la Sénégalais yi euh, di dundee ci li nga xam ne nii moo jëm diine l'islam mm-hmm. rawatina nit ñu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon symboliser di ko doxal te leen ci xërtal <coughs> ngir teg leen ci yoon bu baax loolu bokk na ci leen tax tey jii nii loolu mooy doole Sénégal ci boppam dooloo tax ñu naan suñu kilifa diine yi ci boppam ñoom ñoo yor li nga xam ne nii moom moo tax tey jii nii lu ci bëri ci réew yu bëri boo gisee ñun ñeeñu fekk na ne euh, loolee nga xam ne taxawaay boobu nga xam ne ne ñoom jëmm yu tedd yooyu tey jaar nañ fi te samp ko fi euh, loolu yi tey jii nii mën nañ ne moom moo téye réew mi ba léegi donc loolu lu am solo la euh, àdduna nag lépp nga ngëm-ngëm la war a doon lépp tamit ci ci loo boo koy def dafa war a nekk ci loo xam te ne nii loo gëm la mais bañ ci dem ak demi mesure bañ ci dem ak également juste parce que danga koy def pour faire plaisir à pour benn nit wala pour neexal benn nit justement parce que am na loo ciy xaar euh, te loolu lu tax mu am solo moo di ne boo demee ci ak ngëm-ngëm day tax ne ne la nga bëgg def di nga ko mën a def te gëm am ci yàqin gi nga xam te ne nii moom moo lay mën a mën a atteindre say parce nga koy planifier am na foo jóge am na foo bëgg a yegg am na nooy jaare te loolu lépp pour mu mën a am aussi ngëm-ngëm daanaka mun nañ wax ne ne moom mooy doon euh, euh, euh, sookul bi loolu nag dafa am solo tey Sénégal ñu nekk fii mu nekk pays lay boo xam te ne nii euh, moo xam muy jullit ñi wala chrétien yi ci boppam ñu ngi dund en harmonie te wax dëgg yàlla ku ci nekk ak sa ngëm-ngëm ak sa pas-pas nga koy doxalee na nga xam ne ci anam yi nga xam ne xaj na ne moom moo la gënal ba tax na ne tey jii nii euh, loolu bokk na ci li nga xam ne nii moom mooy doolee Sénégal donc dañuy ñaan yàlla suñu borom euh, ci rawatina ci guddi gi nga xam te ne nii kat mooy guddi gi nga xam ne moom moo gën ci guddi yi daanaka guddi gu am solo la. mu di guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganese àdduna donc moo tax nag ñu ngi ciy ñaan yàlla defal jàmm Sénégal yàlla taxawu askan wi yàlla defal ñu sutura bu baax te jàmm gi nga xam ne moom moo fi nekk nag euh, suñu borom saxal ñu ko fi te loolu foog naa ne mooy cëslaayu Sénégal te nekk na loo xam ne lu am solo la parce que jàmm fu mu am fu ne foog naa ne lépp loo xam ne am nañ ko ci ni ay mbebet yàlla bu ñu dimbalee mun nañ ko daanaka jotal gàmm googee sax ñu aay waaye démb dañoo jékki-jékki rek gis courant ba coupé la ko waral moo di poste courant bu nekk sa grande mosquée ba ci boppam moo am lu ca kalaate ba muy am sax fekk na kon waa seen rek ña nga fa ndax ñeenti fan a ngi nii ñu nekk fa jëm ci wàccaay yu ko gàmmu gi ñu ànd Seex Aliou Kane lu yéeme mu xew ci Medina Baye gannaaw bi ñu jullee timis ba soobu ci wasifa bi dañoo jékki-jékki rek dégg benn explosion nit ñi nag daal tiit génn ndekete poste de courant bi nga xamante ne Senelec moo ko teg ci biir mosquée bi moo explosé xeetu câble électrique yu lakk yi nag foo toll mu daal di lay xeeñ te bi ñu ngi ko doon dégg fu sore gannaaw loolu nag coupure générale électricité moo am fii ci Medina Baye ak it li ko wër jumaa gi lëndëm crise la def kër yi it amul courant am na ay kër yi nga xamante ne dañoo am lii di court-circuit ba sax seen courant bi di kalaate di génnee ay flamme di wax rek ne Pape Mademba bi tey ñëw na nag xool yëf yi lu ko waral ngir daal ut si saafara di fàttali rek ne moom Pape Mademba bi tey def na benn tournée ci fan yi ñu génn rek ci diwaanu Kaolack te it nee na lu jege 2 milliards ci suñu koppar loolee la Senelec jël ngir daal réaliser ay installation électrique pour daal leeral dëkk bu sell bi di Medina Baye waaye it am na fukk ak ñett poste yu bees yi nga xamante ne ay post courant la yi ñuy samp ak it 73 kilomètres ci ay ligne électrique jaajëf Alioune Kane xanaa rek di fàttali ni kon njiitu réew mi président Macky ñu ngi koy xaarandi tey jii sa Medina Baye Kaolack ngir nag foofu du ñàkk it dana fa tàggatoo ni mu ko defee si yeneen euh, diwaan yeex euh, yeneen kër yi diine yi leneen lu soxal bi la jotaay xibaar bi teg l'école gi tiitaange am na ci waa coalition nationale éducation pour tous ak nag kuréel gi ëmb kon waajuru ndongo yi étudiants yi ndax nee nañu doonte amal nañu dajam conseil interministériel euh, te defum dëpp ci njàng mi wax jafe-jafe yi waaye nag am na ci ay syndicats yi nga xam ne ñu ngay xupp ngir na perturber li nga xam ne moo di ndorteelu euh, année scolaire bi Younoussa Baldé séq nax ñoom waxtaan reportage ndax année scolaire 2023 2024 du bari ay perturbation mu di laaj bu samp SAEMS e di syndicat autonome jàngalekat yu nekk ci moyen secondaire bu Sénégal dafa dax fukk ak juróom ñetti proposition de directive yu nguur gi def ngir ubbite l'école bi jaar si yoon ñu ni priorité yi feneen la ci jamono boobu UDEN SNELAS FC SIEMS ak SELS e di exiger ci nguur gi